immigration clandestine dañ ko momalé pêche parce que bo xolé tamit euh, embarcation yi ñuy jël diko utiliser ay pirogue la mooy pirogue yi nga xamné danaka daanaka day napp mais bo démé ci biir diñ ci gis ay jigen diñ ci gis ay xalé yu ndaw diñ ci gis ñu nekkul pêcheur donc problème la bo xamné peut-être c'est un problème assez assez global mais pêche n'ak am ci walu bu reuy ba paré d'accord ci donc di def travaux de sensibilisation yi di ci waxtaan ak ñom di ñaax jeune yi keroog récemment rek dem nañ DER ngeen gis ñu defal leen ay ay ki ay financé ah, pirogues en fibre de verre aussi un message important pour les Sénégal parce que nekk ci sa wetu mbokk dara sont ko ci say famille ci qui ñi la bëgg problème je pense que n'y a comprendre la mais toog fi Le président de la république son excellence Bassirou euh, son premier ministre monsieur euh, Ousmane Sonko ont lan lañ bëgg na au yi ont Sénégal parce que Sénégal dañu fekk ay jafé jafé yu bari d'abord abord ba fekkee jafé jafe yu bari li ngay ñëk def moy d'abord da ngay fekkee jafé jafé yoy nga génné ko boko génné ba paré nak nga bon a propulsé vers le développement ci lool lañ nekk nak li nga xamné dafa nekkoon yu yàqu ñu xol niñ koy réparer boko réparer nak ba tollu nak ci zone bo xamné nak légui euh nu mu tuddati euh, réparé wu na légui nak nga mëna a projeté wu vers comment dire yok té ci lool lañ tollu inshallah